auzu billaahi mina seytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu fu waay mën a nekk ñoo ngi lay ziar di ñaanal jàmm gudd fan wér gu yaram xéwal gu yaram defar àddina ak àllaaxira rawatina yéen ñu amoon ci Daaru Salaam si faaw di wax ne Daaru si faaw dana seet bu la seetalee wax la sarax wala wax la sa càngaay. foo mën dem defe ji fa nga dem defe ji fa daal sam sabab doon seet tey nag li leen li secret la bu yomb lii mag ñi dañ ko daan jëfandikoo bu ñu duggee kaso ku dugg kaso mag ñi dañ ko daan jëfandikoo ak mook 66 bisimilah rahmaani rahim ku ne ci kaso mag ñi daan nañ ko ñaanal boo ko ñaanalee suñu borom mën naa def mu génn lii nag baat la bu ñuy wax mu daxaama taani mudduhaama taani baat bi nag muy nekk suuratu rahmaan baat bi ngay jël nii ma ko bind nga koy binde waaye nag dangay am res bëy da ngay am res bëy nga bind ci lii ci kaw ku ne ci kaso incha allah boo ko joxee suñ borom mën na ko génne maanaam du ko resele ci kaso ba ni ma ko mën a wax mu gàtt baat bi ngay jël bind ko ci res bëy res bëy na ngay am bind ci baat bi moo xam da nga koy def ci lakk ko da nga koy lakk nag jox ko rase bi mu lekk moom mu ne ci kaso bi incha allah bi lii ku ko def suñ borom ku ne ci kaso mën naa yombal ay mbiram lool mu génn gaaw ci kàttanu suñ borom kon ñëw leen si àll leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaa defal nag àllaxira wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh